leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ak fu ngeen mën a nekk si àddina bi rek di ñu siiw di bàyyi xel ñu leen di bëgg à travers le monde tey nag dañoo am benn gan boo xam ne daf ñu seet si yaakaar naa ne yéen a ngi dégg fan yi coow lu bëri ci am ci ay combat yu bees yu taxaw yu gars yi yoo xam ne nii nëbb woon na am ñu koy làqal ci bokk na ci Franc Tyson 2 yéen a ngi dégg Sa Thiès Reug Reug wala Sa Thiès ak keneen ñi nga xam ne nag su arena nag boo ko déggee sa xel sa am ñoom suñu naan est-ce que ñu ay tubaab ak yooyu waaye defe naa daal boo tuddee euh, euh, nan boo santee Diouf defe naa Sénégal ngay doon quoi euh, <laughs> kilifa gi maa ngi lay nuyu di ziar. waaw maa ngi lay ziar di ziar Tongo Dio di nga xam ne ñu ngi bokk ci loolu am bi mm-hmm. en commençant par CNG bi. ak presse bi aussi ñi nga xam ne fi ñu di Badara am ñuy kontaan tey ci dalal bi ñu parce que yaa ngi jox naan waru na ñëw nga ne ñu bàyyi ñu tànsoon ñëw ba léegi loolu tamit di plaisir ci ñun parce que bu la neexoon ñu kaay la fekk seen jamono dañuy ñëw parce que ñun mu ngi la njëkk. ñëw bi fii tey. dëgg la comme li la ko waxee ngay woyof bi aussi yomb moo tax dañu euh, ma wooyee euh, daal joxante woon nañu rendez-vous ndax mm. yow boo doon fekk si si man maa gën a woyof yéen gën a déplacé ak logistique bi mm. ak ressources bi nga xam ne moo donc am na ñoom information tey ma xëy a xëy gis Equivox Arena tey Equivox ci boppam boo ñu ko doon indi lan mooy Equivox ku ko sañ ak ku ko tax a jóg. waaw Equivox moom bon. wàllu caméra bi boo déggee Equivox. Euh, Equivox mooy euh, par exemple box mën nañu ko méngale ak poids bon équi euh, c' est l' information équilibrée. voilà une équilibre de l' information. léegi foofu la affaire bi démarré léegi ñu ngi indi box donc box bi day renvoi à la porte léegi objectif bi loolu la donc ñu am si biir nag benn émission bu tudd Box Arena la voix de l'arène donc la voix de l'arène liggéey si làmb ji dem ba benn moment bon mu nekk euh, organe boo xam ne li muy liggéey ci làmb ji ñëpp d'accord nañ ne liggéey bu rëy la parce que comme c'était évident presque une année d'existence ñu atteindre presque quatre-vingt mille abonnés donc loolu la bokk na ci joué na ci bu rëy donc léegi demee ba si biir nag Vox Arena boobu la ñu labellisé labellisé ko toog waxtaan comme que groupe boo xam ne vraiment c'est des spécialistes de la communication ah ñu réfléchir euh, xool Vox Arena bi naka la ñuy def ba pour dugg ci lamb di commencé organiser ay combats idée bi noonu la ñëwee di profité bu nuyu seen reporter mel ni Cheikh Omar ak El Hadj ñoom sama ay gars yi moo leen di bu baax a baax ban année ngeen ko sant. bon Equivox comme ni ma la ko ah, ko sant pratiquement ci benn dix neuf. benn dix neuf waaw benn dix neuf kon bu ñu ko xoolee tey at la am. waaw at la am donc at parce que Equivox c'est une chaîne euh, de télévision euh, numérique euh, boo xam ne en fait une chaîne thématique euh, boo xam ay secteurs yu bëri loolu moo nekkoon def idée de départ bi. idée de départ bi tey su ma ñëwee nag euh, bi ngeen ko sañcee moom ak ngeen wàllu lamb yooyu nag tey ngeen nag ñëw def box arena maanaam la box tey dafa ñëw en tant que promoteur léegi loolu lu ko waral ak lan moo leen xëy tey ci ngeen dem ba ne da ngeen war a dëgg ay lamb comme voilà comme loolu ok question bi tontu naa si parce que organe boobu xam na la euh, Equivox moo ëmb lëpp euh, donc euh, Vox Arena bi dafa nekk benn label boo xam ne ci biir Equivox TV la nekk. léegi nag suñu waree dugg ci làmb bi il faut ñu am koo xam ne mooy représenté loolu noonu organe boobu léegi nag comme que man maa nekk ci kaw loolu la yàlla def ba nga xam ne daal bu wax waxtaanee suñu biir rek pourquoi pas man ma. ci kanam pour représenter boxe arena bi loolu moo indi nag ñu nekk promoteur ñu tomb comme le mot waaw dugg ci lamb ji pour pour pour jaxasoo gars yaatal ñu voilà ñu liggéey waaw ah, parce que yoon bi yaatu na ku nekk daal mën nga see bay sa waar voilà ba tey muy nuyu mu set dafa naa xam nekk moom mooy DG tamit comme souvent suñu dund yow en tant que tey kon su ma la déggee yow yaa ngi gën a dagg licence bi ci sa tur nekk promoteur voilà ma moom Seck moom moo PDG bi mhm. donc man je suis le directeur général de Equivox voilà Equivox euh, TV mhm. voilà léegi daal licence bi moom man maa ko war a tàggee allah waaw parce que ah ñu ngi yi jéem liggéey indi suñu lu bees parce que làmb quand même mënuñ fi def loo xam ne Asia def ko mënuñ fi def loo xam ne Gaston def ko donc dañuy révolutionner révolutionner làmb ci côté numérique ci ki nga xam ne nii moom mooy Franc combat boobu mu ngeen ko wax lijjanti ak fu ngeen jaar ba xëy xëy nangoo jox ñaari mbir yooyu avance te coow amu ci amul benn bruit dañu dégg rek xëy ne combat bi taxaw na. voilà foofu aussi euh, xam nga comme que ay ndaw lañ. dugg ci dara pour war a màgg dañuy seet tam ay ndaw yoo xam ne am nañ doole mën nañ bëre mbooloo nekk seen gannaaw donc ñooñu dañuy neex àndal léegi ñooñu bi ñu xoolee waxtaan suñu biir suñu choix dañ ko porté ci ñoom parce que ay ndaw lañ yoo xam ne nii wax dëgg liggéey nañ lu rëy ci làmb ji ñu fas ne nag ànd ak ñoom màgg loolu moo tax vraiment suñu choix dem ci ñoom ñu ñu ñu waxtaan signé ak ñoom contrat bi bon question bi nga ma posé aussi si naka lañ def ba nit ñi xëy rek taxawal affaire bi voilà parce que ñun nous sommes des spécialistes de la communication yoro suñu télévision numérique li nga xam ne nii moom la gars yi di wëri suñu amee combat wala am signature contrat war a uti ji ku leen foto ku leen filmer ñun loolu loolu lañ yor loolu lañ déparé ba pare donc tey jii suñu waree jël image ñun ñoo koy jël suñu waree def interview ñun ñoo koy njëkk a def suñu waree jël photo ñun ñoo koy def donc bu génnee ko jotee ñun ñoo koy génnee waaw loolu moo tax ñu mën a doxal loolu ba tënk ko ba fësale ko te kenn yëgu ko voilà. xawu kon jafe bi ngeen di dox combat yi wala ci ñaata weer ngeen ko dox wala ñaata fan. noo dox bi jafewul parce que ñun loolu noonu ma la expliquer léegi ne la ay ndaw lañ yu bëgg dem ut ay ndaw yu ñu gungee ñu ànd màgg ñoom tam loolu lañ jiital seen bopp yi donc ñoom ils se sont dit que ñii peut ñu bees la ñuy ñëw ci làmb ay xale yu ndaw lañ ñoo xam ne dañuy liggéey te fas yéene def lu rëy ci làmb ji. ñoom aussi avenir bi làmb ji peut-être mën na mujj ci seen loxo ñu ne ñoom tam ñu comprendre loolu donc yombalal ñu waxtaan bi ak négociation bi pour ànd boobu mën a yomb. waaw daal affaire bi yàggul waxtaan bi. waxtaan bi yàggul waxtaan bi yàggul waxtaani jeune la waaw vraiment paa yi aussi manager yi euh, Tyson 2 bi père Imna moom tam nekk koo xam ne ku compréhensif la ku baax koo xam ne ni aussi vraiment bi mu ñu gisee comprendre na suñu idée comprendre suñu xalaat ba pare bëgg si accompagner. donc manager yi franc bi aussi as représenté ki moo ko représenté woon Mor voilà ñoom aussi vraiment euh, comprendre li ñu bëgg xam nga fas yéene cee ànd ak ñun voilà donc entre jeune la daal mu nekk loo xam ne waa mbir yi mbir yi réussir. Euh, macha allah Mor ma koy nuyu bu parcelle di nuyu Ibnu Diop tamit bu yore Tyson 2 mais tey bu ma la laajoon ñaari mbir yooyu balaa muy yeneen combat yi seen euh, maanaam ci wàllum xaalis boo ma waxoon tey xaas bi ñaata la war a toll budget bi ci seen kasak yooyu. waaw xam nga euh, déjà présent que signé nañ contrat bi ñun dañuy nekk employeur mbër bi nekk employé donc pour nga employé nit nag ba pare toog ci bërëb di wax ñaata nga koy fay loolu aussi ñun ci côté communication donc juge que vraiment c'est pas professionnel mais yow nag boo déplacé wu dem ci mbër mi peut-être interroger ko laaj ko loolu moom bu la ko waxee il libre moom mu wax la ko et ñun amuñ ci dara lu ñu ciy déranger voilà léegi damay jóge foofu ñëw ci beneen combat boo xam ne dégg nañ leen ci tamit muy Sa ak ki nga xam ne ni moom mooy rëg-rëg loolu fu ngeen ci toll. waaw Sa Thiès ak rëg-rëg boobu aussi ñooñu tam ay ndaw lañ. waaw ñoo xam ne pratiquement combat boobu mooy combat bi nga xam ne moom la ñëpp bëgg amateur yi bëgg moom la professionnel làmb ji bëgg moom la ñëpp di xaar ah ñu ne pourquoi pas nag comme que bëgg def lu rëy moom foog nga yóotu lu rëy. léegi jot nañ waxtaan ak euh, manager bu euh, rëg-rëg waxtaan nañ ak ñoom ah am na luñ tënk waaw waxtaan nañ ak euh, Sa Thiès aussi manager am Père Babou bu ngeen déggee dernièrement am na benn organe bu bind ne Sa Sa Thiès crash sur 40 millions effectivement ñun ñoo fa jaar. Ah, yéen a ko fay 40 millions. ñoo ko fey 40 millions. mu bañ mu bañ. léegi yéen léegi luy solution bi kon. waaw léegi ah ñi ngi négocier ba léegi. ba léegi ñu ngi négocier mais ci côté Reug Reug daal fa la yi gën a yombee mais moom peut-être ñu ngi am yaakaar ne dina xalam dina ñëw wala mook encadrement bu ñu waxtaanee ba déggoo bu fekkee ne ñun tam loo xam ne la euh, mën nañ ko ah ñu xool baax a baax a a baax waaw. maanaam da di boo déggee mu wax la parce que kon côté Reug Reug su ma la déggee daa mel ni foofu moom ngeen mais côté Sa Thiès xëy na moo des te problème xaalis mooy seen problème. wax sax ne tout est ok nañ xam nga lamb moom lépp waxtaan ba jubóo la rek mais foofu daal. moo gën a nooy foofu lañ gën a am yaakaar ne moom foofu daal bu Sa daal blocage bi xam naa ne buy am foofu lay amee sama dégg ñu ne moom 60 millions lay laaj ci source ci ay gëstu ñu def ñun est-ce que loolu leen soo Sa Thiès 60 la leen laaj waaw loolu moom la ñu laaj te effectivement bind nañ ko bind nañ ko ci presse bi ne Sa Thiès 60 millions lay laaj donc ñu fay 40 moo tax daal foofu la blocage bi nekk yéen pare ngeen pour yokk ah waaw bon waxtaan la rek waxtaan rek ba juboo daal waaw ñun daal ñu ngi continuer waxtaan waaw am na aussi euh, manager am mag yooyu su boobu sottiwut aussi am na plan B. plan B bi kan la pour Reug Reug. waaw plan B bi nag moom escalier la dañoo teg ay ay ay ay plan B yu bëri mais pour le moment je préfère ne pas dévoiler suñu stratégie yëpp voilà mais daal am na plan B. pour am na plan B pour pour pour Reug Reug waaw. maanaam. c'est am na beneen beneen plan. parce que ñu ngi fi doon dégg ay jamono Reug Reug Malick Niang ay Reug Reug guy gi yooyu guy gi itam dégg naa contacté ngeen ko. guy gi non. guy gi guy gi contacté ngeen guy waaw waaw waaw c'est que foofu tamit ñu ngi waxtaan xam nga yéen nag suma gars yi da ngeen garaaw. <laughs> wax ngeen ak nas waaw effectivement wax nañ ak nas waxtaan nañ ak nas mais moom aussi li mu wax waaw xam naa ne daal ah foofu tamit daal jafe-jafe jafe-jafe la quoi. parce que foofu du ñoom dama am ay xalaat ay gis-gis yu bala boog ay dégg-dégg yu toll ni moom 60 millions la guy gi laaj waaye nas moom daa mel ni pare na ngir négocier ak yéen ngir bu mënee wàññeeku wala loolu da ngeen koy dëggal wala waaw moom su mënoon a wàññeeku kañ moom waaw su mënoon wàññeeku aussi foofu plan B bi mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko fisale mais euh, lim laaj moom ak euh, par rapport ak suñ proposition dafa xaw a sorewoo daal moo tax foofu tamit daal dafa xaw a xawul nooy daal mais rëg-rëg moom daal su ma leen déggee kon yéen da ngeen a bëgg mu am adversaire ak lu mën a xew di ngeen ko utal adversaire waaw rëg-rëg moom foog ñu utal ko adversaire parce que moom daal ndaw la boo xam ne dañ fas yéene ak moom ak comme ñëpp ah bëgg a révolutionner bëgg def lu bees am na yeneen mbër yu fi ne amaguñ combat gis nañ fi mbër bu mel ne Tapha Tine ay Boy Niang ay Bombardier Eumeu Sène yaa ngi dégg ñeneen ñoo ñëpp ngi ci suuf ak yeneen mbër yoo xam ne ñu ngi ñu ngi fii tamit amaguñ combat est-ce que yooyu seen xel a ngi ci waaw ñun suñu xel a ngi ci ñëpp toujours ñu ngi toog di waxtaan waaw di réfléchir di xool ay affiche waaw parce que saison bi di ñëw incha allah bëgg nañ monter ba quatre ba cinq journée suñ mënee am lu ko ëpp sax dañ koy def waaw. yaa ngi ne suñ mënee am lu ko ëpp ak dëkk bi ñu wax ne jamono ji làmb ji léegi daanu na xaalis amatul ñu xëye xëy dégg Vox naa ñëw ak ay affiches yoo xam ne yu mag a mag la lu ne seen ginnaaw ku leen déy ak lu xew. waaw loolu moom c'est question boo xam ne moom toujours dañ koy xaar foo dem rek ñu nañ la laaj ku ne sa gannaaw sénégalais yee koy laaj sax kay <laughs> loolu moom <laughs> question yi sénégalais la bon kenn nekkul suñu gannaaw waaw Equivox euh, yow léegi léegi rek bi ma ñëwee ne nga ma Equivox nit ñi dañ foog ne ay tubaab ñoo ko moom. waaw tur bi moo tax quoi. waaw waaw ay sénégalais lañ ay sénégalais lañ yu juddoo ci dëkk bi dëkk ci dëkk bi. waaw fas yéene liggéey. parce que groupe boo xam ne la ay professional ñoo ci nekk. ñii communication lañ jàng ñii finance. ñiy gestion de projet xam nga donc loolu noonu bu groupe bu tolloo noonu dañuy xam fan la ñu war a mën a jaar pour def ay montage financier pour mun a atteindre suñuy objectif ci làmb ji loolu rek la mais kenn nekkul suñu gannaaw waaw xam-xam la daal bind la réflexion def ay montage yoo xam ne dinañ xam la ñuy jaar ba mun ko ba ne dañuy ñëw comme li olof di wax tëggum dënd ak sémmiñ neex benn naqari benn ñëw ci làmb songu ko ak xaalis. jaare fa lépp doxe fa tàbbi géej mbaa loolu yéen koy sóoraale après bu ngeen jógee ci combat yooyu. waaw xam nga ñooñu peut-être euh, c'est des gens yoo xam ne dañ jógee ci yeneen activité ñëw doon dugg ci làmb ji mais ñun def nañ un an d'existence am émission Vox Arena di def ay reportage ci làmb ji di côtoyer milieu làmb ji ba xam dara ci milieu làmb ji. donc am na expérience tuuti boo xam ne xam nañ ko ci milieu làmb ji waxtaan nañ ak ay kilifa aussi yàgg nañ côtoyé ñoo xam ne ay kàngam lañ ak ay ndaanaan lañ ci milieu làmb donc bu demee ba jël décision gis ne war nañ cee dugg à travers notre label Vox Arena c'est parce que ñun étudier nañ ko bu baax te comme li ma la wax ah, c'est des professionnels yoo xam ne finance ak gestion de projet lépp dañuy toog moon def suñu ay montage financier étudier ko def ay bilan ah xool lépp ba lépp tegu ci yoon ñu soog a dugg ci affaire bi loolu la daal bokk ñoo ki nga xam dafa jógee fee rek ñëw soobu ci te moom xamul nu mu demee ñun dañ ko gestu ba xam ko ba xam ci dara waaw tey dégg nañ promoteur bu mag bu fi nekkoon ñëwaat ci làmb ji ko mel ni Gaston Mbengue di dox ay combat ba ñu dégg ñu naan sa diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye lépp saye euh, loolu yow noo ko gisee retour Gaston boobu nit ñu bëri di wax waaw xam nga Gaston moom en fait suñu père la te ñooñu euh, ay ay ay ay icône lañ ci làmb ji ñoom waruñ bàyyi làmb ji waaw ñoom waruñ bàyyi làmb ji parce que peut-être jeunes yi euh, ak xër la ñuy demee ak kër mais ñoom expérience la ñuy demee parce que yàgg nañ ci làmb ji te journée bu nekk taxawal nañ ko fi donc amul dara lu leen impressionné ci ci milieu làmb donc ñoom vraiment dañuy saluer seen retour ba pare ah kontaan ci euh, combat yooyu nga xam ne ñi ngi koy dox fas yéene ko taxawal mu nekk loo xam ne réussite làmb ji lay doon nekk ndami Sénégal yëpp donc loolu moom vraiment kontaan lañ ci am bu baax a baax a baax baax. am na koo xam ne ci làmb ji la bokk te yàlla dondi ndogalam si kawam muy Luc Nicolaï mu ngi ci biir kaso bi ci ay ndogal ñu ko ñaanal mu génn fa kooku tamit bu amoon loo koy loo koy yóbbante waaw Luc moom xanaa di ko ñaanal rek di ko ñaanal yàlla vraiment jafe-jafe yi nga xam ne nekk na ci yàlla génne ko ci parce que c'est quelqu'un que nous respectons très tre très très bien parce que lu nekk liggéey na ko ci milieu làmb lu nekk aussi liggéeyal na ko Sénégal bëggal na ko bégal na ko sénégalais yi donc vraiment lu mel nii bu amee gouvernement bi aussi war na am compréhension bu fekkee ne luñ mën a arranger la ñu arranger ko l'autre fois maa ngi seetaan benn vidéo Malick Thiandoum sax muy wax dans ce sens mais vraiment loo xam ne la ñun ñëpp dañ ko sàkku li képp ku nekk Sénégal même koo xam ne làmb intéressé wu la sax am nga cofeel ci moom waaw vraiment ñu ngi ñaan yàlla defal ko jàmmam ba mu génn ci lii di nii ak jàmm delluwaat ci liggéeyam quoi voilà promoteur yi nekk ci làmb ji nga fekk si leen si maanaam est-ce que jot nga ci kenn ay rapport ak ñu mel ni ki noonu quoi. waaw Vox Arena euh, bi ñu ñëwee fas yéene dugg ci làmb ji euh, woo nañ contacté nañ Pape Abdou Fall président des promoteurs waxtaan ak moom bon Aziz Ndiaye aussi woo nañ ko waxtaan ak moom xam nga donc ñun dañu ñëw pour topp ci gannaaw grand yi nga xam ne ñoo ñu fi jiitu euh, fas yéene ah ñëw indi lu rafet. ñoom tam ñu yaatal ñu ñu bokk liggéey bi loolu rek moo fi nekk quoi ñun amuñu benn problème vraiment ay ndaw lañ bëgg a liggéey ci làmb ji te yoon bi yaatu na je pense que grand yi bu ñu yaatalee rek ah ñun dinañ fas yéene déplacé wu promoteur yëpp ku ci nekk ñu dem seeti la waxtaan ak yow xamal la ne dañ ñëw pour topp seen gannaaw ah ñu wan yoon ñi ak suñ minimum d'expérience bi nga xam ne indaale nañ ko pour ñu mën a réussir li nga xam ne moom lañ nas si làmb voilà euh, li nga wax sànq ci ay journée ngeen fas yéene tëgg lépp Dakar ngeen koy defee wala da a bëgg a fas yéene décentraliser génn ci région yeeg yu mel noonu yooyu ngi seen xel wala waaw pour le moment waaw loolu nekk na suñu xel pourquoi pas mais xam pour un début moom actuellement euh, lépp dañuy xalaat rek di toog di ko waxtaanee waaw ñu ngi ci ay waxtaan ci ay réunion di ut ay solution bon di xool suñu programme naka lañu koy doxalee incha allah buñ rek dinañ ko wax ba ñëpp xam daal naka la ñuy defee suñu plan de Euh, suñu organisation bi naka lañ ko fësalee ak naka lañ koy organiser ci biir Sénégal. lutte simple bi fas ngeen ci yéene laal. waaw waaw fépp la ñuy dugg lutte simple bi aussi ñu ngi ciy xalaat fas yéene ci organiser ay journée waaw loolu tam bokk na suñ programme incha allah. Badara am na mbër. Alioune Badara ah waa man de mbër yëpp ñoo ma neex quoi sérieusement parce que lamb depuis temps booy moom lamb dafa neex dañ ko doon suivre. voilà donc euh, ñëpp daal pratiquement samay mbër lañ. waaw mun naa wax loolu. ci daan daaneel. waaw waaw waaw sama sama grand Tyson parce que Saloum Saloum lañ waaw donc te moom xam ne moom tam bi muy ñëw li mu ënd ci làmb ji waaw style bi mu ñëwee vraiment dafa nekkoon loo xam ne c'était extraordinaire waaw dañ ko doon fooyee sax si mbedd yi donc loolu moo taxoon vraiment dañ amoon ci moom benn cofel boo xam ne. miinante nga waaw sama grand la. parce que euh, ñoo bokk dëkk. te bon man dama doon fréquenté koñam Kaolack. waaw am na euh, benn cousin boo xam ne sax moom pratiquement sama meilleur ami la que je salue au passage Maysa Fall mu ngi. ba bokkul ci vox bi. Euh, non bokkul ci vox bi. non Tyson bokkul non bokkul ci vox bi yéen kay vox bi. Tyson daa bëri xam Tyson dafa dafa garaaw. non non bokkul ci maa ngi koy nuyu Mouhamed maa ngi lay bëgg. non bokkul ci vox bi sama grand la moom yéen da ngeen jàpp ne vox bi daal am na ku ne ci gannaaw vox bi kenn newu ci gannaaw. vox bi vox bi ñun la vox bi moom. waaw ay xale yu ndaw ñoo ko defar teg ko bu baax. waaw nekk ci di liggéey. am na solo naa ci yow. mais maa la gën a kontaan maa ngi dëgg vraiment di di kontaan ci accueil bi ngeen ma accueil fii lew Leewtoo voilà gis nañ seen liggéey liggéey bu rafet la waaw yéen liggéey lu rëy ci làmb ji ay jàmbaar ngeen ñu leen di encouragé waaw ah, di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm ba lépp li ngeen xam ne ni moom ngeen mëbët ci làmb ji waaw si ay projet ay perspective ci kanam yàlla defal def ci jàmm te yombalal leen ko voilà noonu la demee ah Mansour Alioune Badara Diouf a ngi noonu ndeysaan di doomu Sénégal li mu wax am na solo defe naa am réew boo ci dëkkee da nga koy jéem a yokk te defe naa li lu yokk réew mi la rek ñëw tey ci làmb yokk ci sa tuus parce que loolu day tax rek mbër yi gën a mën a bëree te yaakaar naa loolu lu am solo la kon ñuy ñaanal waa Equivox rek ak waa Vox Arena ak képp ku nga xam ne tey yaa ngi ci làmb ji fas yéene di tëgg mbër yi yàlla di la ci defal ndam nga koy réussir parce que nag làmb dafa nekk li nga xam ne nii waaw ngay profito may profito rek aussi di remercier en fait euh, gars yi nga xam ne yëpp ñoom lañuy ñuy bon comme si mel ne du Seck sama xarit la sama doomi ndey la ñu bokk vraiment sosandoo Vox bi euh, ñoom élage Hadj Cheikh ak am na ñeneen yoo xam ne ñu ngi siy liggéey aussi maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax ah di sant aussi sama famille voilà di sant sama soxna moom mi nga xam ne toujours aussi lu ma dugg rek da ciy nekk di ci jàpp voilà mes enfants aussi je les salue au passage di nuyu vraiment samay parents samay mbokk am di jàmm yi waa axlu lamb bi di ziar mbër yi nuyu promoteurs yi waa CNG bi surtout xam naa ne bu ñu démarré dinañ leen seeti ñoom tamit voilà ñoom ñëpp daal ñu ngi leen nuyu ñëpp côté sponsor yi laajuma la ci loolu am na ñu ne seen ginnaaw ci sponsor wala ñu ngeen waxal comme wàllum finance yëpp da ngeen ko xam yéen waaw waaw waaw sponsor aussi ñu ngi ciy dox parce que sponsor yi ñun ay projet la ñuy bind voilà ay projet la ñuy bind après ñi ñu ciblé dinañ dem toog waxtaan ak ñoom ah jéem a xool nan la ñuy ci projets yi parce que c'est des projets yoo xam ne ku nekk da nga ciy gis sa bopp. waaw waaw la daal ñu gis. jaajëf Mansour kon yàlla na Sénégal am jàmm àddina bi am jàmm corona bi gën a dem yaa ngi dégg làmb ji mën a continuer parce que lii am na solo di ñaan yàlla rek jàmm am barke yonent bi sallallahu alayhi di tamit promoteur yëpp rek parce que ñoom ñooy tëgg mbër yi. beneen yoon ak beneen gan rek incha allahu rabi ak Leewtoo TV 100 pour cent lamb du mën a ñàkk Mansour mais bëgg naa ñëpp ñi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk Petersen encore une fois rawatina Jib Seen ak Babacar bu muur la ma du ma fàtte di leen nuyu Mansour a doon film yàggay monté ay sa fayay bind noonu la demee woon